man may Adama Mader Diop man maay Adama Mader Diop di président mouvement amul xaar euh, di mouvement associatique waaye di mouvement politique euh, mbir mi ma yitteel ak mi ma yëkkati ginnaaw bu ma nekkee responsable politique di président mouvement euh, dafa jaadu boo dee citoyen sénégalais képp Euh, sa réew nga war a bokk ci ñiy contribuer ci développement ba am droit à nga wax sa xalaat boo gisee lu jëm ci li nga xam ne mooy sa mouvement mu am ñu koy mbubboo ànd ko ki kilifa di di di di jëmmal ne ñoom ñooy coordinateur national. Euh, comme ni ma la ko waxee rek ñun man Adama Mader Diop. Maire président du mouvement amul xaar euh, di mouvement boo plateforme la am représentativité dans toutes les grandes villes et départements du pays et dans la sous-région su ma toogee ba mu yàgg ma gis benn waay bu wax ne moom kenn la ci kilifay suis venu wala ñuko ko koy woyé wala mbu boko ko jël suñu mouvement di wër ak mom réew di wax ne mooy coordinateur bi national bi loolu day jaadu ñu jóg ñu àddu ci xamal leen ne kooku li muy wax dara amu ci xamul mouvement amul xaar fu mu jóge xamul lum cosaanoo xamul lu waral tur wi xamul fan lañ ko sosee ak kañ la. mouvement amul xaar maa ngi am initiative bi en en en deux mille dix neuf en deux mille dix neuf la xel mi ñëw si ne jaadu euh, enjeu politique yi am en deux mille en deux euh, ñu ne dina am ñu ne nañ créer mouvement ndax fi réew mi jëm ak enjeu politique yi am fok ñu àddu ci te pour ñu mën ci àddu tigi da ciy bokk ñu créer suñ mouvement loolu c'est en euh, initiative ba mu ci collaborateur collaboration bu ñu amoon ak Abdoulaye Diouf Sarr ñu dem ba 2021 initiative bi ñu jëmmal ko wutal ko tur muy amul xaar pourquoi amul xaar euh, le sénégalais a tendance lu xew rek ñu ne nañ xaar boo nee nañ dox fulla la ñu ne nañ xaar tuuti nañ defi dara ñu ne nañ xaar tuuti te àdduna fi mu toll temps amatul comme temps moo ñàkk xaar mënul ñàkk xaar xaar mun naa ñàkk kon loo jóg pour def ko def ko tey ndax suba li muy andi kenn xamu ko te démb weesu na euh, amoon na ay témoins yu ko fekkee bokk ak ñun xel mi ak xalaat mi bi nga xam ne taxawal nañ ko xalaat nañ ko 2019 jëmmal ko 2021 ànd koog ñiñ ko àndal boobu ba léegi def si ay tourne ba élection locale yi nga xamante ne nii ñoo weesu. ñu àndoon amoon coalition ak Demba Faye bu yewi askan wi Demba Faye moom tey mu ngi Benno Bokk Yaakaar ànd ak Maguette Sène on a eu à sillonner lépp luy commune commune bu Malicounda de de de Madinatu Salaam à point au point Tisarène euh, jël suñu ay oto def si sonorisation amul xaar si yoone commune ba ba tey amul xaar moomu bi mu jógee ci loolu mu wër réew mi de Marsassoum à Bémet 1 jusqu'à Bémet 2 de Bémet 2 à Bignona jusqu'à Ziguinchor Escale ba tey loolee liggéey boobu noonu mu ngi nekk en place responsable politique yi bokk na ci taxawu ñi nga xam ne ñooy les nécessité ndax réew mi bu amee ñu man am na ñu tële su amee ay góor am na ay jigéen te jigéen amul doole lépp lu ñu mën ci wàllu sociale ñu ngi ko doon def ñu ngi doon def ay plan d'action euh, euh, je peux te montrer tout de suite les photo ci plan d'action yi mu bokk ci suñu koñ bi ñu dëkk ñu ngi ko doon set setal ñi ñuy dégg xam nañ ne organiser woon nañ benn benn tournoi de football. boo xam ne ñu ngi ko amaloon à Madinatu Salaam tournoi de football bi loolu weesoo ñu ngi ko ànd ak ay kilifa kilifa yi lépp lu ñu mën ci lu baax ñu ngi koy def ak nit ñi te du loxol kenn ku nekk suñu ginnaaw suñu suñu propre moyen de bord moom la ñuy defee loolu di jéem suñ kéem kattan ànd kook ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom vision politique xàccee ndoog ñoom dóorandoo ak ñoom ngir lu jëmale réew mi kanam. ndax réew mi nag ñun ay sénégalais lañ te ku seetaan di nga ñeetaan te ku ñeetaan mbooloo mi dem bàyyi la fi am mbir nag te xamoon ko ñàkkoon mbir ma di ko wuti sax da koy gën xam nañ Sénégal xam nañ doomi réew mi lañ dañoo bëgg a jëriñ suñu réew moo taxawaloon ñu taxawal mouvement asiatique boobu di mouvement. man mun naa la ne jotaguñu si jotuñu si sax te mënuñ si jot buñ si jee jot ñu ñoo leen di xajal. parce que politique amul soustraction addition la am dàquñu kenn ku am vision politique wala ñu bokk ak yow gis-gisu politique wala idéologie politique ni ma ko waxee ci wolof euh, euh, nga ñëw adhéré si mouvement bi ñu liggéey waaye liñ dul mun a nangu mooy ñu xejal la suñu mbir luñ la xejal ak loo moom ak bokkut luñ la xejal da nga koy xam loo moom da nga koy xam ki koy mbubboo dafa mel ni amul xalaat moom amul xalaat ndax bu amul xalaat war na mun a créer ñun niñ créer amul xaar moo créer am xaar ànd kook ay nitam wala mu ut beneen tur ànd kook ay nitam waaye bu demee jël amul xaar ñu koy wooyee mooy coordinateur national bi là je me dis que problème y problème lu tax y problème mooy na jël fi boppam mu créer yi fi boppam moom bu amul xel amul xalaat du réfléchir yuusul mayenam ñi mu àndal war ko mën a def. moom membre fondateur la ci moom du membre fondateur mu wàlliyaan la. wàlliyaan te bi mu fi wàlleeg léegi ci trois mois lay toll. waaye nag yàlla dogal na ci moom muy mbubboo ne xaritu euh, premier ministre bu réew mi la te loolu moom kilifa gi bu xoolee bàyyi xel dina xam ne kooku du xaritam du xaritam. ndax moom am na parcours politique premier ministre am na parcours politique bu sénégalais yëpp xam muy parcours boo xam ne wax dëgg yàlla e, def na histoire am ba tey muy xëccu aka woote bëgg a nekk njiit réew mi am na ñu ko àndaloon am na cabinet politique bu toogee ba ay ñetti weer mu gis benn waaye bu jógee fee ne am na mouvement bu tudd amul xaar jiital sikki moom tent ko naan man maa moom amul xaar Euh, di ko lo ne ko ñun ñoo nek sa ginnaaw ñu ngi fepp di liggey ma di ko wax ne ko euh, kilifa gi monsieur le ministre koku da nax ñu mel nonu dañu jara baye xel ndax dañu bari ci rew mi ndax yagul dara andu ak yow andu ak yow xolal ba ngay xex parcel asini xolal fi nga jaar ba yegsi fi nga gisoko won kon bu toge ba tay ngay aspirer wala nga am ambition wu nekk njiitu réew mi mu ni sa xarit la di mbubboo amul xaar amul xaar àndut ak yow je veux être clair amul xaar àndut ak premier ministre amul ay accord amuñu ay accord amuñu ay accord mhm. matu ko boobu ba léegi bi ko def bi ñu gisee vidéo bi juste la xale yi ne dañuy réagir mën na leen déedéet ku ne tekk-tekk woon la yoon dañ leen ko déglu bu doon nit la koo xamante ne nii ay wor ak i wuruj ak caacaay nekkul ci moom day woote waxtaan ndax ñun duñ ay duñ ay ay ndaw yoo xam ne wala ay nit leader politique yoo xam ne dañuy ne ci mbedd mi di jëf yu ñaaw wala ñu koy def ndax réew mi nag dañ fi dëkk. ak suñu ay nawle am luñ fi yaakaar a doon ëllëg kon am na taxawaay boo xam ne duñ ko am waaye nag biñ gisee moom mu insister ñu bindal ko la euh, le coordinateur national de amul xaar national ma ne kii il exagère waaye ma ne teg ñu toogaat ba mu yàgg ma gis ne ma nga dem ba Thiès di monter ay cellules ma ne kii xamul boppam ndax nag mbir moo xamul fuñ ko foon fuñ ko fuñ ko fuñ ko defee fuñ ko xalaatee xam nga fu ci noonu jaar ñu xëy bés ne la ñëwal ñu àndee ko. ndax loolu mooy politique loolu mooy politique ñëwal ñu àndee ko nga xëy jël sa yoonu bopp jël ay gone dajale leen dinaa leen woon léegi benn benn benn vidéo boo xam ne ñetti nit dafa nekk Cees mu ne loolooy amul xaar mooy wax kilifa yi nga xamante ne ñoom lay waxal ne leen wax jooju dara wéeru ci moom xamul nu amul xaar amul xaare dañ ko cee xejal mhm. ñi ko ci xejaloon nag ñoo ko ne seppe sa loxo ba mu set. comme yow doo nit ku ñuy waxtaanal noonu la demee. léegi ma dégg la amul xaar dafa bokk ci benn coalition bu ñuy wax ñun ñu ëpp coalition ñun ñu ëpp suñu nañ ay protocole d'accord ak euh, ab plateforme la bu regrouper ay partis politiques ak ay mouvement yu bari. ku ñuy wax euh, monsieur Sow Imnu Imnu Sow jiite ko depuis France euh, plateforme boobu accord yi ñu am ñu ngi ko am ak Diomaye président Diomaye président moom la amul xaar di liggéeyal pour l'instant activité yi ñu nekk di ko def yëpp de midi ak 14 heures guddi ak bëccëg suba ak ngoon di réunir du liggéey mooy lu fal Diomaye président kon amul xaar bu ko déggee ci beneen plateforme ñu ne ñu ngi cey yëngu ñi jiite loolu su fekkee ne am nañ vision bu claire am ay ambition te ma jàpp ne ay kilifa ñoo fa nekk ay borom xel yu leer ñoo fa nekk ndax ku xam Amadou xam ne digg yàlla kilifa la ku yàgg liggéey si réew mi la musuñ ko dégg mu wax lu ñaaw kon ñun duñu wax lu safaane jëm ca moom ku xam soxnaam Fifi da xam ne. c'est une dame d'affaires liggéeykat la ku jàppale borom këram la kon façon nit yu mel noonu waruñu leen a côtoyer di mbubboo ne seen xarit lañ te dara amu ci furaas dal di xideen ba ñuy daw di politique ñooñu nekkuñ fi kon leen fi ñu jaar nga xam ne le chemin est plein d'embûches yoon wi bëri na ay jiit bëri na ay jànqalaar ñoom nag fi ñu ci jaar ba yegg fii tey mu mel ni li ci des bëri na wala bëriwul ñooñu tent seen i sikkim ñoo taxaw. mooy mooy mooy ñuy mbubboo ne ñoom ñooy coordonnateur amul xaar rek te ñoom kam amul xaar xamuñ ci dara. non am na ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne euh, soxna si ku mel ne man tudd seen tuur daleen di may bës di du ko mët du ko mët waaye junj doy na borom xel ñoom xam nañ seen bopp te yéen di ngeen ko xam doomi Kaolack ah waa Kaolack de xamuñ leen déedéet amuñ fi pantre Kaolack amuñ fi pantre waaw sama mbubb maa rëccu ma mënu maa rëcc mu rëccu ma mënu maa waaye politique fekkee la ak wax euh, ginnaaw boo fekkee la xew boo ci amee loo war a wax loola da soo tolloo ci wax ko danga koy def loolu laa def nii damaa tàmbali si sama tàmbali kàddu ma ne la bi mbir mi xewee am na ay ay agissement maanaam ñu yëngu ak ñu yëglu ndax nag yëf jaaxal na leen ndax xamoon nañ borom sikim buñ tant bi ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci groupe groupe bi nga xam moom lañ créé woon waaye buñ ko déggee feneen ba pare dégg ko. mu mbubboo amul xaar ba pare il se permet di di di monter ay cellule gars yi ne eh, kii ëppal na de lañ leen def conférence de presse ma ne ko kii matul def fo conférence de presse suñ benn photo su rek xejul ci moom voilà noonu la demee.